Fall waxoon naa ko moom mooy secrétaire général bu CRADEC Babacar Fall gannaaw ba ma la delloo nuyu euh, tey ci ngoon ni ma ko waxee rek euh, la jëwriñ ji dénk euh, lépp lu jëm ci biir réew mi fas yéene fësal liste électorale yi yow noo ko jàngatee. maa ngi lay gërëm di la nuyu soxna Fatou Kiné ci invitation bi. comme ni koy yoon tëralee tey juróom-ñeenti fan ci mois de juin ci la effectivement ministre bi war a génne arrêté bi nga xam ne moom mooy biral liste yi nga xam ne jàpp nañu ne jaar nañu yoon ñooñu ñoo war a dem élection nit ñu ñu ngi koy xaar euh, dafa nekk loo xam ne nag comme je dis rek lu jafe la euh, élection nga sonn def say investiture déposer sa liste ba noppi ñu ne la sa liste baaxul ñu rejeté ko pour tel ou telle raison loolu képp ku xam ne dal na sa kaw dina nekk loo xam ne euh, dina metti mais ci beneen wàll bi tamit Euh, bu fekkee ne arrêté bi génn na ba ñu xam lis yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci jongante bi am na yeneen problème yoo xam ne dina ko indi ay problème yu bëree bëri yaakaar naa ne ci kanam ci waxtaan bi loolu dinañu seet problème yooyu euh, lan moo ko indi euh, lan mooy saafara bi et cetera maanaam problème mu couleur yi problème mu bariwaayu liste yi naka lañ ko war a mën a gérer ci euh, bureau de vote bi problème yoo xam ne même yéen journalistes yi sax di ngeen ko pour couvrir campagne électorale bi ak yooyu yëpp ay jafe-jafe xam ne yaakaar naa ne ci kanam dinañ ci mën a wax ko dinañ ci loolu sax fi nga daaneele la des di wax liste yeeg seen tolluwaay ñeent fukki list ak juróom-ñeent ñeent fukki list ak juróom-ñeent yooyu ñu bari nag euh, fii ci Sénégal jàpp ni ëpp na muy nag ñi fare ci ku jéeg politique gi ci wàllu politique bi sax ba ci sax ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy sénégalais ñoom seen gis-gis rek mooy waroon nañ ko mën a wàññi la ñu bëggoon nag mooy euh, nañu ko wàññi ba mu nekk ñaar jàpp juróomi bulletin ndax bulletin yi tamit bu ñu naree tànn ñeent fukki bulletin ak juróom-ñeent dafay bari ci ñoom ñu teewlu ñenn ci sénégalais ci micro Alassane Oui, Barina, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, man li ma ciy xalaat daal ci loolu euh, ñu exiger nit ñi pour ñu mën a jël deux deux bulletins rek ku ne xam nga ki ngay woteel mais boo jëlee deux bulletins pour mu mën a gaaw quoi pour mën a gaawal euh, vote bi parce que sinon dama naan est-ce que benn jour dina ci doy. loolu dafa bëri nañ ko jéem a xool nu ñuy def rek jéem ko wàññi ba xam parce que ki ngay jël am na ay xale am na ay mag bul sóoraale xale yi rek da ngay sóoraale mag ñi parce que mag ñi mën nañ ñëw mais 49 yooyu yëpp est-ce que mën nañ ko jël loolu mooy wax ji mais bu dee jeune comme ñun amul problème mën nañ ko jéem a jël ñu tànn mais bu dee mag day xaw a metti kon ñoom nañ jéem a xool nan lañ koy organiser rek. bu ñu waxtaanee peut-être nañ trouver benn consensus boo xamante ne loolu du mën a dinañ ko mën a wàññi quoi. bari na trop trop trop bu ñu ko mënoon wàññi man moom moo gën quoi loolu dafa bari trop arrangé wuñ sax loolu bari trop te nit ki da ngay sóoraale lu ba lu ñëwagul quoi nit ki toujours bulletin yi warul bare noonu arrangé wuñ. man bu doon sama sogo lépp lu ñëw rek nañ ko waxtaanee. ñu xool solution boo xam te ne bu dee buñ ko mënoon wàññi ñu wàññi ko parce que def ay bulletins yoo xam ne après du jariñ dara ñun tout Sénégal toujours nañ xool loo xam te ne ah, mu nekkoon gis-gisu Sénégal yi ci ah, tolluwaay bulletin de vote yi waxaguñ ko nag ndax xamaguñu ñu ñuy validé ak ñu dul validé mais tey jii rek ah, ci ci mandarga bu ñu validé woon yëpp yëpp maanaam 49 listes yooyu donc 49 bulletins de vote certainement. Euh. loolu moom bu ko euh, nit di jël mbaa loxo yi du tokki. waaw loolu vraiment nekk na loo xam ne euh, gulet la. parce que bu ma fàttalikoo 2012 si élection yu euh, législative yi ñu mujj def ñu ngi amoon euh, ñaar fukki liste ak ñeent mm. tey bu ñu demee ba am ñeent fukk ak juróom-ñeent daanaka donc mbir mi dafa jéggi dayoo. maanaam dañu c'est du simple au double problème la. lu expliquer déjà loolu lu expliquer loolu mooy xam nga euh, avec euh, euh, réforme constitutionnelle yi nga xam ne moom la def léegi dañu permettre maanaam indépendant yi ñu mën a bokk ci élection yi yaakaar naa ne am na ay indépendant yu ci bokk xawma seen lim bi ñaata la. ensuite nit ñi dañu dem ba jàpp ne fi mu ne parti yi bari nañu tamit tey am nañu lu war a tollu ñaar té presque ñetti téeméeri parti te parti jàpp nañ ne léegi benn parti mënatul dem élection di euh, gagner moom kenn donc nit ñi dañuy lëkkaloo léegi def ay coalition loolu moo tax vraiment liste yi bari maintenant euh, liste yi bari am na ay solution euh, solution yi am na ci niñ ko waxee seen élément bi nit ñi wax ne mën nañu permettre nit ki mu ñëw jël ñaar wala mu ñëw jël juróom am naa suma benn xarit boo xam ne ñu ngi yëngatu ci suñu kuréel bi ñu bokk moom def na proposition bu demee noonu naam lu mën a nekk la bu fekkee nit ñi mën nañ ci waxtaan ba juboo ci euh, parce que metti na 49 liste nga bëgg a ñëw jël benn bu nekk coono la déjà te dina jël temps bu bari ci temps de vote bi boo seetee bu fekkee ne ci benn bureau de vote dangay jël ne par exemple euh, bureau de vote 600 électeurs ñoo ci war a nekk même bu fekkee ne xaaj ba maanaam 300 électeurs ñoo war a voter bu ku nekk bu defee juróom minute mbaa juróom-ñaari minute boo ko seetee dina ëpp ñaar fukki waxtoog lu topp tey vote bi daanaka huit heures lay ubbi ba dix huit mu jeex dañuy obligé di proroger di dem ba ci guddi gi yooyu ay problème la. déggoo ko mën mën nañ ko éviter. Mhm. Euh, ci kaw ministre bi woote. mandataires yi wala parti yi ñu toog waxtaan parce que politique consensus moom moo koy doxal nit ñi waxtaan ne kat léegi euh, problème am na problème boo xam ne ñëpp mën na leen indil ay gàllankoor ki nga xam ne mooy candidat mën na ko indil gàllankoor kii ñëw di tànn mën na ko indil gàllankoor ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau de vote bi di saytu war a bind procès verbaux yi ñoo ñëpp mën na leen indil ay jafe-jafe kon nag ñu waxtaan ñu set nu ñuy wàññee liste yi mais comme ni ma koy waxee wàññi liste yi naam mën na nekk bu fekkee ne juboo am na mais dafa am loo xam ne est-ce que juboo boobu dana yomb déggoo googu maanaam yaakaar naa ne parce que actuellement euh, li olof yi di wax kii bëgg ko ko wéttali ak kii amul fu mu fanaan euh, defe naa tëjal bunt bi du leen boole parce que tey mboolem acteurs yi ma dégg yëpp ku ci nekk vraiment am nga njaxare ci mbir mi ni mu tëddee parce que kenn xaaru ko woon kon yaakaar naa ne donc jubóo bi dina war a mën a am ñu mën a xool maa xam ñaari liste la wala juróomi liste la wala fukk la nit ki di jël mais li ma ciy wax rek ci wàllu woowu mooy xam nga wat dafa nekk loo xam ne lu secret la nit ki daf ko war a def maanaam ci axulaay taalaam kenn xamul kan la woteel mhm. mais bu fekkee ne da ngay ñëw ci bureau nga ñëw tànn juróomi bulletin dugg ci biir naam du ñu xam ci juróom yooyu koo ci voteel waaye représentant parti yi toog ci bureau ba nga ñëw ñu gis ne jëloo seen bulletin dinañu xam ne voteeloo leen. loolu donc ah, problème la aussi. <laughs> bu weesoo bulletin yeeg seen tolluwaay est-ce que ay jafe-jafe également duñu ko mën a xaar ci euh, maanaam euh, couleur yi ndax gis nañu saa su ne euh, couleur yooyu dafay faral di indi ay jafe-jafe ak ñàkk déggoo. loolu effectivement lu am la fàttali ne d'ailleurs code électoral bi permettre na am na disposition boo xam ne dina permettre bu ñu génnee liste bi. ba nga xam ne xam nañ ne nangami liste fii ak ay fan ñetti fan wala ñeenti fan ministre bi day woo mboolem mandataire yi nga xam ne ñoo déposé ay liste bu ko defee ñu xool bulletin yu nekk parce que booy ñëw di déposé sa dossier de candidature da ngay maanaam li ñuy wax épreuve li nga xam ne yow moom nga bëgg sa melokaanu bulletin danga koy indi nga jox leen ko bu ko defee yëpp bu ñu ko xoolee dinañu xool yi nga xam ne maanaam dañu xaw a nuroo ñu woo ñaar wala ñetti mandataires yi nga xam ne seen bulletin dafa nuroo wala nit mën na ko jaawale ñu waxtaan ñu trouver solution euh, mais solution yi am na loi bi lu mu ci wax bu fekkee ne par exemple ñaari parti la yoo xam ne dañu bokk couleur dañuy seet parti bi nga xam ne mooy jëkk a juddu beneen bi kooku la ñuy jox priorité ka ca des wuti beneen couleur bu fekkee ne ay coalition la dañuy indi li ñuy wax la règle de l'antériorité maanaam coalition yi xam nga dañ leen di déclarer la veille du dépôt des kii bu fekkee ne ci ëllëg sa avant ñuy déposer moom dafa ñëw notifier candidature am midi ka ca des notifier candidature am 18 ka jëkk a notifié kooku la ñuy jox priorité donc am na ay règles yoo xam ne tëral nañ ko ba ci wàll boobu vraiment du am problème bien que nag dina am ay jafe-jafe parce que juróom-ñaari couleur rek moo am ci àddina. wax dëgg waaw juróom yeneen yi des yëpp maanaam ay couleur la yoo xam ne yu ñuy jëlee ci juróom-ñaar yooyu maanaam nga gis. Euh, couleur boo xam ne dafay gën a leer bi gën a lëndëm bii mm. gën a xàll tuuti ak yooyu donc il faut moo am ay ay nuances. beneen ko am na benn benn livre bu ñuy wax Pantone boo xam ne maanaam dañ ci indi nuance couleur yëpp ay ay téeméeri téeméeri couleur la boo ku nekk di nga jéem a xool ba am couleur boo xam ne di nga ko jël boo xam ne dina méngoo ak yow xëy na sa couleuru parti te également du indi confusion euh, ci vote bi. mi ngi noonu dinañ ko wéyal euh, waxtaan bi ñu daal di wax rek euh, ci li ñii di waa dekkal yaakaar ab coalition la moom it boo xamante ne rek judd na mi ngi boole ay parti ay mouvement lu ci mel ni alliance pour la réforme ñàkk jariñu nag la ñuy woowee seen bopp wala rassemblement islamique ñoom nag nee nañ ñu bokk kon ci woteek législative yi ñu dëgmal muy faluk faluk député yi El Hadj Amar Lo moom la ñu jiital ci bopp coalition boobee nee na nag coalition bi euh, nekkul euh, mouvance présidentielle moo leen financé ci wàllu koppar dañ ci ànd ak Fatimata Ba ci biir coalition bi ñetti parti politique ak ay mouvement citoyen dekkal yaakaar ne dina bokk ci wote législative yi ñuy amal fanweeri fan ci weeru juillet li ñu bëgg nag moo di am groupe parlementaire ci assemblée nationale. ñoo ngi dem ci élection yi ak liste nationale dem ci fukki département ak. ñaar boole ci diaspora bi loolu tam di tax ñu def ko mooy souci wu concentré suñuy doole ak suñu man mën ak suñu pexe ci bastion électoral yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ku mel ne Touba ku mel ne Mbour ku mel ne Thiès ku mel ne Louga suñu objectif ci élection yi mooy lu mu gàtt-gàtt ñu am groupe parlementaire muy quinze députés. liste yu bëri yi du dara lu dul démocratie gu am doole El Hadj Amar Lo ak ñu mu àndal teg ci it na seen coalition bi du njiitu réew mi moo leen financé. su fekkee ne dafa am ay liste yi nga xam ne si dafa am ñu leen financé ngir ñuy brouiller piste yi mbaa ñuy divertir nit ñi loolu na ngeen xam ne liste bi di dekkal yaakaar bokku ci. liste biir di Dekk Yaakaar ay nit ñu am indépendance ñu am Pastef ñu xam luñ bëgg ak xam fan jëm ñoo ko composé te ñoom ñoo koy financé seen bopp. coalition Dekkal Yaakaar ne dafa bëgg indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel fii ci Sénégal. situation bi ñuy dund ci réew mi tey ci wàllu économie bi ci wàllu sociale bi ak yeneen ak yeneen ay situation yu jafe la yoo xam ne li tax ñun. ñu taxawal suñu coalition bi di dekkal yaakaar mooy ñëw jàppale sénégalais yi dimbali leen ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yooyu. El Hadj di maire bu sagate Gédé moom nag mooy tête de liste coalition Dekkal Yaakaar nee na nag yaakaar dëgg moom la ñu am ci bile liste. notre notre objectif aujourd'hui c'est d'arriver à convaincre des Sénégalais. Fatimata baa ñu di ko jaajëfal ñu dem ba ci dëkk yenn ci dëkk yi gën a sori nekk ci bëj gànnaaru réew mi fa ca mel ni euh, diwaanu euh, Saint-Louis euh, commune bu Ronk dëkk yooyee ñu naan Jawar Laba jàpp nag fa nga xamante ni rek moom mooy Thiagar ca département bu ca fële ca village bu Thiagar sax am na ab soxna soo xamante ni ni coalition Benno Bokk Yaakaar tabb na ko ci liste électorale yi loolee nag guléet la ci dëkk boobee Ousseynou Diop. Sénégal ay gox-goxaat yu bare seeni ay doom dégg nañ honorable député waaye nag boo demee ci dëkk dëkkaan yi nga xamante ni ñoo gën a sore amul kenn koo xamante ni mës na fa nekk député bokk na ci dëkk bi di càggar tax sax yenn ci dëkk yu ni mel ay jafe-jafe la ñuy dund moo tax askan wi ñoom ñu nga yëkkati kàddu ginnaaw ba ñu tabee ñenn ci seeni doom te ñuy yaakaar mu mën a génn ci élection yi mooy ñu fexe jóge askan bi parce que tey boo xoolee tey li ñu li ñuy yëngu ci wàllu mbay la ñuy yëngu tey booy xool ñu ngi wax auto autosuffisance tey autosuffisance pour ñu mën ko atteindre tey da bokk na ci lu mel ne wàllu yoon lu mel ne que wàllu yoon intrant yi di teel ñëw. seeni mëbët doon ñu gën leen ni jàppale ci seeni ay jafe-jafe. bu tawee ku ku duggi woon roose da nga yenn siwo dox ba càggar amul fu nu jaar amunu case de santé bi amul dara nan si ñaanal. nu am fu nu teg suñu loxo jigéen bu fi accouché dañu lay teg si oto balaa nuy am oto du noo woote ba suñu crédit yëpp a jeex di dox ba fu nu oto dabi nu yab la nga yóbbu looloot am na nu jafe-jafeem. càggar dëkk bi amul benn député boo xamante ni mas na fi jóge moo tax nag askan wi jóg ngir jàppale soxna Sile nga xamante ni waa coalition benn bokk yaakaar moom la ñu jiital ci département bu Dagana ginnaaw ndaje boo xamante ni ñoom kilifa yëpp ñoo ci ànd. Fatim tey si commune Ronk bu ñuy dem élection municipale moo jiite woon seen liste. majoritaire moo ko gagné maam Diop à Richard la même chose kon teguñu ko ci par parloo dañu ko teg ci choix bu jaar yoon bu normal parce que ñun ñoo ko doon wax. ci Sénégal nag bare na ay dëkk yoo xamante ni député mosu fa génnee fii ci càggar nag askan wi ñu ngi xarandi élection législative yi ngir seeni doom yi mën a dégg honorable député. Euh, sant ko bu baax Ousseynou Diop ni nga ko waxee sànq Babacar Fall euh, ñu bari nag danoo bootu ci ab coalition ngir wut ndëgër laay ci wote yi waaye am na ñoo xamante ni nii candidature indépendante euh, la ñu taam lu aju ci candidature indépendante yooyu ci sa gis-gis lan mooy seen seen chance ci wote yi. seen élection maanaam dafa nekk loo xam ne ñëpp ci bokk yam mhm. c'est des élections ouvertes pour tout le monde. Mhm. ku ci nekk am nga ci chance parce que tey boo seetee. Euh, nit ñi ñi voté ñi ci ëpp léegi nekkuñu ci parti yi boo xoolee ci at yi ñu gis gis nañu partie yu bëri yoo xam ne dafa am ay crise euh, seen doole di wàññeeku en prise ba ñu amoon ci euh, électeurs yi wala ci citoyens yi dafay gën di néew donc jàpp naa ne candidature indépendante yi également am nañu chance parce que tey boo seetee ba seet lim bu bëri ci askan wi bokkuñu fenn maanaam dañuy xool koo xam ne xëy na am nga programme bu leen doy wala gis nañ ne sa jikko rafet na sa loxo set na ñu sànni la seen carte donc euh, boo ko jàppee noonu donc indépendant yi ñoom ak ñi nga xam ne dañu nekk ci ay parti daanaka ñoo ñoo ñooy yam chance. Mhm. Euh, du ñàkk nag ci ci kii xam naa dinañ jeexal waaye balaa boobu du ñàkk ci ba tey ñu des ci publication liste yi du ñàkk ñoo xamante ne nag euh, xëy na du ñu leen nangul seen i liste kon du ñàkk ñoo xamante ni daañu mer ci ci ci ci ci liste yeeg yooyu. waaw loolu lu lu mën a am la. Mhm. mais loolu déjà. Mhm. dafa am ñaari maanaam noo koy jàngatee. lan mooy indi sax léeg-léeg ñuy rejeté. waa rejet bu fekkee da nga respecté wul yenn par exemple critère lu mel ni par exemple parité dañu wax ne euh, boo ko maanaam euh, critère de recevabilité la la bu am doole maanaam bu fekkee ne defuloo parité maanaam tànn góor jigéen góor jigéen ci liste yëpp loolu sa liste mën nañ ko rejeté bu fekkee ne da nga tànn maanaam ñoo xam ne euh, ils ne sont pas éligibles. maanaam xëy na seen casier judiciaire daal am na nu mu nu mu lëndëme mas nañ leen tëj wala et cetera yu demee noonu mën nañu rejeter sa liste mais également yoon daf leen jox bu fekkee ne tey publier nañu yoon man may na leen vingt quatre heures après la publication bu fekkee ne maanaam motif bi tax ñu rejeter yow d'accord loo ci nga saisir conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci diiru ñetti fan vraiment dina jël dogal pour wax ne vraiment candidature bi. baax na wala baaxul waxtu bi dab ñu rapidement lan mooy mission grade grade ci euh, mais Fatou Kiné c'est vrai que c'est important mais li am solo mooy ci solution yi yaakaaroon naa ne mënoon nañ ci wax. parce que solution yi dafa nekk loo xam ne lu jafe la. parce que jafe-jafe yi comme ki nga xam ne mooy organiser élection bi day am jafe-jafe parce que nee naa la di nga euh, imprimer lu war mat 350 millions de bulletins loolu xaalis bu bari la. ki nga xam ne mooy dem di voté ji dina am jafe-jafe maanaam ci moom tànn bi ci 49 fi naka lay tànnee mais ñi nga xam ne yéen journalistes yi yéenay couvrir campagne bi euh, di ngeen am jafe-jafe parce que bu fekkee ne da nga bëgg a topp convoi bu nekk. il faut que nga wut 49 caméras 49 équipes et cetera xaalis bu bari la matériel bu bari la donc loolu rek mooy uh-huh, jafe-jafe yi alors maintenant donc ay solution am na nit ñaa ngi koy wax nañu def ñaari nit ñi tànn ñaar wala ñu tànn juróom wala même ñu jël bulletin yi def façon isoloir yoo xam ne bulletin yi dañ koy def mu nekk ci gannaaw isoloir yi nit ki bu ñëwee dugg daal di jël benn dugal ci enveloppe am kii waat donc solution mën na am mais ci kaw waxtaan am consensus voilà loolu moom lu am solo la maintenant nag GRADEC li nga xam ne moom mooy mission en tant que organisation de la société civile mm-hmm. mooy maanaam di gëstu ci wàllu élection euh, di accompagner nguur gi bu yàggul bi nga xam ne ñu ngi def campagne d'enrôlement bi amoon nañu partenariat ak nguur gi pour sensibiliser électeurs yi yu demee noonu bu yàggul am na équipe bu gradé boo xam ne mool nañu benn téere euh, di vraiment expliquer mbiru élection bi naka loolu war a demee euh, maanaam ponk yi diñ ko tëralee ak problème yi ci am li nit ñi war a jaar maanaam leeral ci xalaatu nit ñi donc gradé groupe la boo xam ne daal ay experts ñoo fa nekk seen xel màcc ci wàllu élection wàllu décentralisation ak également wàllu euh, droits humains. ñu di ko jaajëfal bu baax euh, Babacar euh, Fall nekk secretaire général bu CRADEC jaajëfal nañu la ci wisi bi xibaar yi ñu wéyal ko.